alhamdulilahi rabbil alamin li tax ma njëkkee ko dina leer ci émission bi jërë ngeen jëf mbokki internet allo Sénégal ba ñu yëgee ni Ousmane Sonko dañ ko daan 6 mois avec sursis ci lañ yëgaale ni du mën a bokk élection 2024 yi xel yëpp daal di sëngéem waaye nag bañ seet see sëriñ Abdou Aziz di sëtuk sëñ Sidi Muxtaar ah di sëtuk sëñ Sidi Mouhamadou Lamine Bara waaye nag di sëtuk sëriñ Touba mu tedd mi bañ ko seetsee tey mu dalal suñu xel wax ñu loo xamante ni tey wax dëgg yàlla soxla nañ Sénégalais yëpp dégg ko ndax jàmmi réew mi lañu soxla li tax ñu seet si ko nag dafa amoon lu mu waxoon ñaari semaines yi weesu ñu toll ci mënuñu buñ ca tollee ngeen dikkaat ma waxaat leen liy xew dikkaat nañu nag ndax procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang bi ni mu demee sénégalais jaaxle nañu procès Ousmane Sonko Adji Sarr bi le 16 sax ñi ngi naan dina am ak du am ndax Ousmane Sonko daan bi du gën a métti ndax ay avocat Ousmane Sonko dinañ am luñ ko layalee sëriñ Abdou Aziz Al sëriñ Abdou Aziz Mbacke mi ñu seet si xam na lii xew bu soobee yàlla waaye nag dinañ ko dinañu waxtaan ak moom ci séparoo ak xaajaloo bi nga xamante ni moom moo tàmbalee am ci opposition bi. gis nañ Barthélemy Diaz kàddu yi mu yëkkati démb Ousmane Sonko bërki démb la wax mu mel ni xaajaloo am na xalifa sàll gi dégg guñ ko ba léegi sëriñ bi nag dina génn àddu ci loolee. waaye balaa boobu dañ koy bàyyi moom Serigne Abdou Aziz Mbacké Balla mu nuyu mbokki internet yi nga xam ñoo koy seetaan Serigne bi bismillah bismillah salaamaaleykum maa ngi nuyu mboolem kuy dégg suñu kàddu di leen baalu àq te di baal mboolem ñoo xam ne yéen ñuy teewlu rek di wax ni bismillah maa ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak ñi nekk ci bitim réew maa ngi nuyu ñëpp rek bismillah jërëjëf Mbacke Balla comme ni ma ko waxee woon bee paase rek actualité actualité moo ñu fi indi waaye xam-xam bi nga xamante ni suñu borom may na la ko te nga donn ko ci say maam du ñàkk ñu njëkkee ko njëkkee nag wàllum listixaar ndax li ma waxoon rek ci daara ji listixaar nga fi gën a sévère ndax nee nga faw nit ki xam bunt bi muy jaar pour mën a ñaanal nit ki mu mel ni booy jàngale sax listixaar ni ngay mel doo ko mel ci yeneen yi ngay jàngale. Euh, bisimilah sëñ maa ngi lay nuyu bu baax a baax di ñi nga àndal. di wax euh, ci wàllu listixaar xam nga dafa am loo xam ne yonent bi daf ko waxoon ne àdduna ñaari nit ku ko saxoo rek ak coono mën na laa bañ a dab ba ca jiitu nag muy wàllu ba ca njëkk muy diisoo nit ku saxoo diisoo rek mooy lépp loo bëgg di def rek di diisoo di ci waxtaan diisoo nag bu ñu koy wax mooy waxtaan waxtaanal ña nga xam ne mën nañ ca mën na mën nañoo waxtaanal nit ku ko saxoo rek sunu borom dana la defal tawféex mm-hmm. ba ca topp mooy listixaar al listixaar listixaar nag bu koy wax mooy wër ak yiw bu ñu koy firi ci arab mooy wër ak yiw li saxaar nag dafa doon loo xam ne maam jiitu na bu yàgg yonente bi di yonente bi alayhi salaatu wasalaam di di di fi ñëw ndax euh, li saxaar nekk na loo xam ne ndax Alxuraan dafa wax ne kullu sëy na xadadan nit koo seen bu ne rek nit koo seen ku ne rek dafa am ci adat bu mu tënku waaw te boo xoolee ci wàllu tabia dafa am maanaam ñeenti tabian ba ca njëkk muy ndox ba ca njëkk muy sawara ba ca njëkk muy ngelaw ba ca njëkk muy suuf te àdduna ñeenti jamono la muy jamonoy noor ak jamonoy nawet ak jamonoy colloor ak jamonoy noonu noonu la tëddee waaw waaye nag bu ñu xoolee tamit euh, jamonoy fajar ak jamonoy suba ak jamonoy tàkkusaan ak jamonoy guddi àdduna lépp sunu borom daf ko daf ko daf ko tënk ci ay adat ndax alayhi salaatu wasalaam bam naan xam-xam dana dana dem ba mujj mujj mujj siin bu ñu xoolee arafu arafu abajada lettre ba ci mujj daanaka siin la waaw comme da kon xam-xam nekk na loo xam ne lu kéemaane la te lu doy waar la li saxaar nag masala nit ki ni muy jugee ngir euh, dem ca hôpital ba ngir xor yaramam noonu lay jóge waxtu ndax lépp lu am zaahir rek dafa am baatin waaw te bëriwaa na ndax euh, jamono yi gën gi mbindéef dafa amoon benn gileem goo xam ne gileem gu taaru la woon ñaari ñaari waay romb romb giléem gi ne ah giléem gi de macha allah na gi dañ ne giléem gi de rafet na baat bañ jëfandikoo teg teguñ ca macha allah rek maanaam maa maanaam giléem ga dafa dafa dafa dafa tëdd. bañ bañ bañ ñëwee dañoo jël ndox raxas ca kanamu giléem ko wis wis leen ko giléem ko dafa jugaat bëriwaa na koo xam ne mu nga tëdd hôpital bu ñu xoolee làmmiñ baa bët rek ko teg bëriwaa na koo xam ne ay mbiram maanaam mu ngi daan dox jékki-jékki taxaw la ca ëpp daanaka làmmiñ képp la làmmiñ nag doon na loo xam ne bu ñu xoolee Serigne Touba bëri na ci ay xasida bëri na ci ay mbindam yoo xam ne musul na ko ca mm. waaye bëri na koo xam ne daal jafe-jafeem ci àdduna ndax lu ci ëpp mun naa ni wàll maam maam xeeti cat mbaa xeeti njabar la mm. loolu nag euh, maam li ciy mën a dimbali nit ki faaw ñu xool ba xam kii nan la ak naka la bu ñu xoolee ci wàllu seet nag dafa am loo xam ne Cheikh Mamadou Lamine Baara lañ ko doon noo ndax mu sëñ mu saaka dañ naan faj aajo moo ca gën a gaaw lu wax boromam mu ne waaw day fal di folli ci lu gaaw mën naa ragal ci xarnu bi mhm. sëñ Baara moom sëñ Baara rëkk day daan toog bi sàngam ne nit bi sàngam ngay faatu bi sàngam ngay maam bi sàngam nangam ak nangam loolu nag ko ci sëtoo képp ku ci sëtoo rek am na ay sirru lu mel ni sirrul maçon waxtu woo ca nekkee di ko liggéey rek ñaareel bu nit ki da nga da koy séen baa ngay gis ko xam ay mbiram waaye daal xam nañ ci ay mbir yoo xam ne waxtu mm. ñu xoolalee nit ki damaa ñaareel ba sax nit kuy ñëw ci ñun li may lay ñaan mooy balaa kenn di jëflanteeg ñun ngal la nag ñoo xoolloo ndax xool xool nag ci wàllu ay mbir dafay yombali mbir ndax kër gu Alxuraan dafa ne kuy dugg ci kër rek nañ jaar na nga jaar ca bunt ba waaye wàllu seet am nañ ci loo xam ne ndax nit ki ay sarax rek mën daanaka mën na koo tënk moo tax wàllu li saxaar ba ci wàllu seet daal bëri na ci ay mbir yoo xam lu mel ne Jibril Muhammad Muusa Firawna ci ay yoon yoo xam ne waxtu nit ki ñëwee rek daanaka waxtu ñu la ko defee rek suñu borom mën na la ca defal tawféex mën na la defal ak yiw macha allah waaye eh, sëriñ bi fi may jàllaat dafa mel ni am na mbir moo xamante ne yitteel na la lool te moom nga gën a sawar sax laay wax ci liggéeyal ko nit ki muy wàllum kaaraange toll nañ nag foo xamante ni jamono ji la nga waxoon ci sa vidéo yooyu passé rek ku amul kaaraange ci réew mi moom mën naa ni mën ngaa génn réew mi dem xooli feneen foo làqatu waaw ah, nga suñu Seex Tijaan si da daan wax nan maanaam dëkkee faju bañ a feebare ko gën te feebarkat yàlla moo koy teg jaamam waaye dafa am loo xam ne nit ki day sabablu te xam nga wàllu kaaraange fi jamono toll daanaka ak njabar toll na foo xam ne nit ki nu mu mën a def rek ndax njabarkat maam nit mën na cee fexe ba nit di liggéey ci ab palaasam nga ne kat diw balaa ñetti fan mu jóge palaas ba. Mhm. nit dana nekk ca bërëb nga ne diw naa def loo xam ne. danaa ko xaptal ba fa mu nekk dafay jóge ndax euh, bu ñu xoolee ci alayhi salaatu wasalaam yonent bi yéefar yéefar ya nga xam ne dañoo jugoon ngir di ko njabar ka nga ka nga xam ne moo ko daan firil karawam moo jëloon karaw ñu boole ko lañ ko daan boole lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko booleel tàbbal ko ci teen ndax bu ñu xoolee rek dafay taxawaat ci baatu baatu lis maam baatu arab ndax euh, bu ñu xoolee Muhammad dafa taxaw taxawaayu naari yu boo jëlee Muhammad nag tàbbal ko ci teen sawara ak ndox waxtu wu ñu jëflantee rek da day maam day day fay waaw sunu borom wàccee ñaari saal xul a'uuzu bi rabbil falaq ak xul a'uuzu bi naas waaw moom moom comme wàllu njabar dafa mel na melokaan woo xam ne ku ci mucc ku ne rek mun naa ne yàlla yàllaa la dimbali waaye wàllu kaaraange daal am nañ ci loo xam ne waxtu nit kuñ ko jëf nit kuñ ko jox ndax xeeti njabar dafa bëri ay tegtal yoo xam ne da caa am maanaam masalan nga dugg sa kër dangay gis koo xam ne daanaka balaa moo balaa xolam mën a tàng dëgg rek dafa dugg këram. Mm-hmm. da gis koo xam ne balaa xolam mën a tàng dëgg rek daa daa nekk ci bërëbu liggéeykaayam. da ngay gis koo xam ne balaa xolam mën a tàng dëgg ka mu bëggoon démb da koo jot ndax njabar dafa doon loo xam ne dafa bëri ay màndarga. Mm-hmm. ñaare nit waxtu géntee di bëri lu lu maam jaxasoo di sëy ndax euh, daanaka loolu lu ci ëpp màndargay njabar la ndax àdduna dafa toll foo xam ne. Mm-hmm. ñu bëree bëri seen xol dafa gumba te xam nga la suñ Moussa Ka wax naan borom xol bu gumba raw borom bët ju fettagut te bu am na fa bu fa jamono tolloo daanaka lu bëree bëri bëree bëri mun naa ni kenn mënu caa mucc waaye wàllu kaaraange daal am nañ benn jaaro boo xam ne Cheikh Mamadou Lamine Baara moo ko joxoon maamu maami Cheikh Ahmadou Kara ak maam Thierno mi mooy seen maam maam Marème Sey seen maam dund na téeméeri at ak ñaar fukk waaw yaakaar naa ni kenn barke kenn ëpp ko kenn kenn gënu ko gudd fan kenn ëpp woonu ko wér gu ba tey yaa ngi dégg ay sëtam jaaro boobu nag ñaareel ba mboolem kuñ ko jox nga yor sax njaboot sax njaboot gépp danoon doon danañ doon doon benn bu dee wërsëg kenn du la ko ëppale bu dee mucc kenn du la ko ëppale waaye wàllu kaaraange daal am nañ ci ay yoon yu fasanti yoo xam ne lu mel ni xeeti xasum xay ndax euh, boo xoolee garabu xay doon na garab gi nga xam ne moo ndax lépp lu lépp dañ ne nabaat ak sajara ndax sunu sunu xam dafa dafa dafa dafa dafa dafa yaatu ndax wolof la ne jàng njàng njàngaan demal jàngi waxtu woo màggee rek ber daal waaye daal am nañ ci xeeti ñaan yoo xam ne waxtu ñu ñëwee bés nag demoon naa ca sunu maam Cheikh Sidil Mokhtar ne ko maam bëgg naa daal ëllëg ci biir mboolem koo xam ne ay aajam narta faju yàlla bu mu ma gis nga ñaanal ma ko mhm. sëñ bu ñaanal ma loola moo tax ñëpp képp ku ñëw ci man rek na sant yàlla bu baax a baax a baax xam ne ndax ndax man mii di wax ak yéen mën naa ne lantinoor képp laa lantinoor nag moom du tee diw mhm. ndax lépp lu may def lu ne rek ci ndigal ak euh, mbirum Sëñ Tuubaa rek a tax ma di ko def amul leen loo xam ne maa ngi koy def ngir sama jëmi bopp mhm. ndax euh, bu dee alal ak wërsëg Sëñ Tuubaa loo ñaanaloon nañu loo xam ne maam bu buftu bii wal ñaan nga waxtu ne dañ koy gis mhm. mu ne lépp loo xam ne buur moom lay lekk moom ngeen di lekk fu buur di fanaan fa foofu geen di fanaan waaye lépp luy rey buur teggi leen waaw waaye nag àdduna euh, dañ ne defaru képp du du du du ndam te du sakk waaye da ngay defaru ba pare defaraale waaye lépp lu ñuy def lu ne rek dimbali jaamu yàlla yi rek ñooñu moo ñu tax a jug ndax sëñ Saaliw danaan wax naan jaamu yàlla ci biir jaamu yàlla yi sëñ Tuubaa ne yaddi muhnin karimin naafin din laari daari taati mina sultaana sama loxo duma ko tàllal kenn ku dul suñu borom moo tax lépp lu waaye di lépp luñ jug ngir defal ko waaye rek dañoo xam ne liggéeyal yàlla ak jaamu yàlla rek moo ñu tax macha allah Mbacke Balla am na solo waaye fas gi du ko fàtte daan nga bëgg sax bu ñu koy ubbee waxtaan bi waaye tey fi ñu toll ak fi ñu la fekk moom moo tax rek ñu ubbee li si xaar ak yooyu waaye fas gi nga xamante ne doon nga ko ci sa maam te di ci toj jamono di ci liggéey loo xamante ni tey ñëpp amee nañ la ci njukkal laa bëgg nga wax ci. waaw xam nga sëñ Lamine xam nga gàllaaju fas moom mun naa ne day gàllaaju cosaan ndax du lépp loo xam ne lañu ndax wolof dane lu jiw a jeexut rek jugu fa ndax gàllaaju fas moom day gàllaaju ndono kon mu ne la biirun baarun saxsat saxit mujjib waxaaf janna fa janna fa min muxsit ragal naa ni doo dem benn téere ba fekk ko fa waaye gàllaaj goo gàllaaj gi nag dafa nekk gàllaaj goo xam ne sëriñ siiri Moxtaar moo ñu ko joxoon ca Mbàkke Kajoor màggal gu jot damay bind màggalu Mbàkke Kajoor gu damay bind génn xasida yóbbul ko ma bind xasida yóbbul ko fekk génn góor ca Kajoor mu noon jàmbat wàllu xala wàllu néew kàttan xala boo xam ne ñu ko takkoon sëñ bi nag dafa nekkoon seexul bi sëriñ boo xam ne ndax ab sëriñ booy jébbal ci moom da ngaa jébbal naa la sama bopp àdduna ak alaaxira kon mboolem àdduna mboolem tawat joo xam ne nit am na ko am na ko ci àdduna boo ñëwee sëriñ bi koy saafara fas gi nag day fas goo xam ne fas gu kéemaane la ñaareel ba mboolem koo xam ne da am jafe-jafe ci néew kàttan mbaa ngay sëy di gaaw di yegg mbaa sa xel nekkut ci sëy waaw mbaa ñaare ba sax awra dafay dellu waaw ndax euh, Sëñ Tuubaa dafa wax ni dañoo daganal ci ki nga xam ne dafay jàngale la muy jàngale mu jaar ca yax ba waaye mboolem koo xam ne am nga jafe-jafe bi waxtu woo ko takkee ci sansi mboolem jàngoro jooju ca lay tàqali ko yow ndax gàllaaju fas dafa gàll doon gàllaaj goo xam ne masalan lu mën naa ne fas ak lu mel ni tur xeeti gàllaaj yi nga xam ne gàllaaj la yoo xam ne mhm. dees koy fas na koy takk léegi rek lépp lu ñu la ci wax nga gis ko ci fas gi nag toog ci génn moo koy toj waaye wallaay lans yi mboolem nit kuñ ko jox ngay sëy léegi-léegi sax dañuy saatante nit ki bu ko takkee di sëy bu demee ba tëw a yegg sax mu tekki ko ngir mën a ndax ba nit ki kat bakkat la mm-hmm. ndax xam nga bu ñu waxee ci wàllu fas ndax dafa yoon dafa waxoon ne jamono ngi ñëw maanaam nit bu paasee fanweeri at rek daanaka lu bëree bëri dootu ko mënati ndax fi ñu toll ndax bu ñu xoolee wàllu seytaan wàllu jinne wàllu lu mu mën a doon ba ci lekk yi ngay xam ne dañuy dañ koy lekk lépp dafay tënk nit te buntu suuf day jaaruwaay lu bëree bëri mm-hmm. te ab sëy gis nga soxna boo ko amee waxtu waxtu wol kër ga neexut ak jàmm mënu fa am mm-hmm. nit nag boo ko réglul mënoo koo regle te bëriwaa na koo xam ne da ngay takk sa soxna nga gis soxna si baax lool ci yow lu ne mu mën la koo defal waaye xam nga ni tawat tawat ji mu ngi ci yow te maam tawatu néew kàttan mu ngi ci yow mm-hmm. tawat nag maanaam nit dana dem hôpital lu ne di ko di ko di ko di ko def ngir tawat jooja saafaraw waaye daal li ma mën a xam ba xam ko fas gi mboolem ku ko jël ba keroog ngay faatu ci kàttanu yàlla ak dogalam jàngoro yi néew kàttan moom dana tàqali ko yow te bu waxtu woo demee bay jëflanteek soxna si dana mel ni ku toll ci waxambaane waxambaane wu toll ci diggu dooleem te ñaareel ba tamit xam nga sëñ Lamine lu baax rek am solo te lépp lu ñuy def li ma wax rek ñun ay lantinoor lañ lantinoor nag boole loolu Cheikh Samba Diarra Mbaye daan wax naan bu leen ma yéem yéem leen ko ndax waxandew rek laa de waxandew rek laa wuñ def di wax buñ ma ubbee buñ ma ubbee muy la muy làmmiñam lépp lu may def lu ne rek la dama koy def ngir ñëpp am jàmm ngir ñëpp mën a am tawféex ndax euh, sëñ Lamine dafa am xam-xam dafa doon loo xam ne xëy na tubaab bee ñëw rek waaye bu njëkk lu bëree bëri ci xam-xam lañ koy lañ koy lañ koy dañ koy defee man nag daanaka mun naa ne xëy na sax mun naa toog diir bu diir bu yàgg nit du ma lii ndax lépp lu ne rek ci liggéey bi laay nekk ndax waaye nag su ma soñoon daal ñëpp am jàmm rek waaye fas la goo xam daal boolem ko am jafe-jafe ci néew kàttan baa ngay sëy di gaaw di yegg lu mu ci mën doon ndax am na goo xam nag jigéen gu taxaw la waaw jigéen goo xam dafa jigéen gu mënta am doom jeex na dafa taxaw waaye daal waxtu wu ko takkee ci diiru fanweeri fan waxtu wu jotee ci soxnaam ci kàttanu yàlla dogalam moom dana dana ci jàpp ëmb sëñ bi daa am lu ñu jaaxal ci yow ñu ni nag eh, faw ñu laaj la ko tey donte que nag yàgg nañoo def émission te mosuñ cee wax li tax bu ñu nee sëriñ Abdou Aziz rek ñi ngi naan mi ngi ca daara ja bu nekkul ca daara ja mi ngi faj aajo yi bu ci nekkul ma nga xalwa xalwa nag toftal nañ ko ci sa tur léegi lan moo tax xalwa gi nga koy dugg. xam nga sëñ Lamine man mën naa ni moom xëy na daara ji mooy sama liggéey waaw ndax yaakaar naa boobu kii ci daara ji lu mu gàtt gàtt juróom fukki dong ñu ngi fi. waaw waaye nag dafa am loo xam ne ñun ci yar ak jàngale képp ci lañ tënku lédd luy àdduna lépp lu tax di àdduna loolu taxu ñoo jóg ndax àdduna ak sëñ Tuubaa dafa waxoon ne jaay ji ju jaay ji ju jahannama ne ku jaay sa àdduna sa àdduna dana jeex te ku sa àdduna jeex jahannamay sa kër ñun nag ci jàng ak jàngale la sëñ Tuubaa nekkoon loolu képp lañuy ñuy xéntoo jëm caa nekk waaw roy roy ci sëñ bi sëñ Tuubaa képp lañuy ñuy roy waaw mboolem kuy jullit nag nanga xam ni lu baax rek moo ñu tax a jug waaye xam nga xalwatu sëñ Lamine dafa doon loo xam ne nit ndax dafa am nit koo xam ne mu dara maa munoo koo jox dara mu sangoo ko munoo koo jox dara mu naan ko ndax dafa li bal bi rey yoo dafa reyu nay waaw xalwatu nag euh, nekk na mbir moo xam ne ñaareel ba nit buñ ko dugalee lu ay mbiram tëju maanaam mm-hmm. ca la ñuy falee ca follee maam nit lu muy ut ci àdduna lu muy lu mu dëgër dëgër dëgër dëgër ci kàttanu yàlla ak dogalam waxtu wuñ ko dugalee xalwatu xalwatu nag dana am xalwatu juróom-ñetti fan am xalwatu goo xam ne xalwatu ñetti fan la waaw waaye dal am danañ ci def liggéey loo xam nit lu muy ut donte këyit la lu mu jafe-jafe jafe donte maam kër gu muy sanc la donte maam ay maam alal ju mu bëgg la donte lim maam fu mu bëgg a yegg la ndax xalwatu dafa doon loo xam ne waxtu woo waxtu woo ci nekkee rek mën naa da ngay tax ko sa borom te yàlla képp ku ko nekk rek mu nekkal la waaye yor nañ ci rek yoo xam ne dafa am loo xam ne sëñ Lamine sirul maçon la sirul maçon nag sëñ Touba ko joxoon Cheikh Mamadou Lamine Baara waaw sirul maçon nag yaakaar na ku ne xam ne sëñ Baara mu waxoon sëñ Baara rek daanaka lu bëree bëri mën naa caa yem waaye képp koo xam ne bëgg nga yëkkati ko mbaa bëgg nga ubbeeku ndax am nañ ci ay yoon yoo xam ne moom ndax euh, sunu borom daal defal nañu tawféex yoo xam ne daal wax dëgg yàlla suñ sañoon ñëpp am jàmm suñ sañoon ñëpp nekk ci noflaay alhamdulilah dañuy ñëw nag yeeweeku nga nga ñaanal ñu yeewi waaye dañuy jeexale actualité da ñoo waxoon lu yàggul dara ci kaw Ousmane Sonko ak Mame mu mel ni nag dañ fa yegg Ousmane Sonko Mame bi mu defee appel dañ ko daan 6 mois avec sursis loolu nag te ko bokk élection 2024 yi balaa ñoo ñëw nag ci procès mag Adji Sarr bi damaa bëgg procès mag Ousmane Mame Mbaye Niang bi tak daan biñ ko daan bi ko teree bokk élection yi. waaw ah, xam nga sëñ Lamine ñun ay cheikhul murabbi lañ ay sëriñu tarbiya lañ ñaareel ba li ñu tax a jug mooy fexe jëme ñëpp ci yàlla mhm. àdduna nag dafa am loo xam ni la sëñ Saali waxoon euh, lu dul lislaam awma ci defar awma ci awma ci yàq waaye nañu xam ni muy sonk muy kum ci mën di doon rek politique moom lu baax la mhm. waaw ndax sëñ bi muy wax loolu xam na ni politique moom lu baax la ndax politique bu ñu koy wax mooy fekk euh, lu ñëpp bokk nga taaral ko ba kenn ku ne mën caa gis boppam masal nga fekk géej nga fexe ba gi jën jën jën yi ca nekk na seppi ko ba kenn ku ne mën caa jote loolu mooy politique mm-hmm. waaw waaye nag euh, gis nga nguur li ma ci wax na nguur gi nañu jiital yërmande ci lu mu mën di doon mm-hmm. xam ne àdduna lépp loo mës a dégg lu ne rek du lu fi bees darra nekku fi lu bees te lépp loo dégg lu ne rek jàppal ni lu ñuy nettali la te lu fi lu lu ñëwaat la ndax ay nit njëkk nañ di ko def moo lépp lu waaye di def rek na doon lu rafet. mbirum usmaan Sonko nag ak Mame Mbaye Niang bu ma ci waxalee yàlla doon na loo xam ne lu ma métti la lool. Mm-hmm. waaw ndax euh, dafa am loo xam ne lu waaye xamadi xamadi da xam ne teguñu ko ci yoon waaye nag àdduna dafa am loo xam ne jaru ko àdduna mën naa ni ñaari buntu kepp la. bunt bi ngay duggee ak buntu bi ngay génnee ñoo jàkkaarloo bu néegub sarala la kon dafa am loo xam ne jëf ak jëfin wu ñaaw da koo jërut te gis nga réew nit ña fa ne yaakaar képp moo leen fay bàyyi waaye nañu ñaan yàlla te ba yaakaar boobu bu mu yaakaar bi nit ñi gone yi nga xam ne am nañ ko sonk ak i moromam dañu mm-hmm. fexe ba ak lu mën a xew rek nañu fexe ba yaakaar boobu bu mu naxasaay mm-hmm. waaw te Sénégal nekk na réew moo xam ne dama naan nañ ñëpp sant yàlla bu baax a baax a baax xam ne sëñ Touba sunu maam El ba ci bàyyi ñas ba ci mboolem wàlliw yi nga xam ne wàlliw yàlla lañ. Mhm. tëdd nañ fii ci réew mi réew mi maanaam lu baax ak jàmm rek a fi am. yàlla nag buy defar wolof naan dañ naan day mel ni koy yàq donte sunu borom moom du yàq dara. Mhm. waaye waaye nañu sant yàlla bu baax a baax te gën a dolli mu ñaat xam ne naqar fu mu nekk rek daanaka bànneex képp ca topp. waaye réew mi pétrole beeg gaz beeg lu ñu fi mën di dégg. Mhm. nañu xam ni maam lii ñëw sunu borom dana dana dana tàggat ay nit yoo xam ne dañuy pare ci lépp. Ousmane sonk nag lu mu mën a doon rek na na jël sant yàlla def ko jiital ko ci muy léppam waaw ndax euh, li ci kanam rawul rawul ay gët. Mhm. te na sant yàlla bu baax a baax a baax a baax te gën a dollee muñ. Mhm. ndax lépp loo muñut rek doo ko muñ waaw loo muñut rek doo ko muñ te nguur. dafa doon loo xam ne sëñ Saliou dafa daan wax nan nguur nguur ak euh, garabu ron ñoo yam garabu ron maam boo euh, loo ca jàpp borom nit bu ca yéegee yow ma ca suuf loo ca jàpp lu mu néew néew néew borom du ko xeeb mm-hmm. waaye loo ko yëngal lu mu néew néew néew néew ka ka kaw du ko bëgg mm-hmm. kon nañu gën a rafetal bu baax a baax gën a dollee yërmande sunu biir xam ne Sénégal dëkk la boo xam ne képp koo laal ku ne rek mbaa képp koo jàpp ku ne rek jàppal ni sa mbokk nga jàpp sa nawle nga jàpp kon nañu gën a sant yàlla bu baax a baax a baax gën a sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla sant naa leen bu baax te di leen ñaanal jàmm di baalu ak mbooleem ki nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéen a ngi may teew. xaajaloo bi am ci politique bi doo ci nag ak procès le 16 bi. yàlla xam na ni. li ma Adji Sarr Adji Sarr li ma mën a wax daal mooy yàlla na ñëpp am jàmm rek te Sénégal yàlla jàmm jàmm sax waaye daal am na yoo xam daal. wax dëgg yàlla maa ngi maa ngi ñaan te su daal Sénégal li gën ci réew mi rek moo fi am te loolu nag naa def sama kéemtalaay kàttan maa ak samay morom. doon ci Barthélémy donte sama jëmm ji xeebu na waaye nag naa def sama kéemta ah, mbirum Barthélémy Dias daal wax yàlla man daal li ma mën a wax mooy. deretu bopp du may loosu borom te lu waay ren say loxo lay naajte. adduna nag maanaam nit ki mënoo yeewoo yeewoo yeewoo yeew ba mën a nax nit ñi réew mi nag dafa toll foo xam ne. dama naan dañoo xamut waaye bu ñu xamul lu bëree bëri duñ ko def. Hmm? suñu yaa ngi junj de. Ah, lu tax ma wax loolu mooy. nit bu demee ba ba nga xam ne maanaam ña nga jiite ñoo la maam la ngay def ñoo la ko gën a xam rek lépp looy def lu ne rek bu yeboo nga seet ci yàlla. kon dafa am loo xam ne dañoo xamut sëñ Lamine daal maa ngi maa ngi tàggatoo foofu te di leen ñaanal jàmm baax a baax a baax hmm. jërë ngeen jëf. mu ngi noonu mbokki internet al Sénégal tey nag sëriñ Abdou Aziz Mbacké lañ seet si woon. mbokk yi ñu bëri xam nañ ko waaye ñu bëri buñ ko xamee nag daara jee tax ñu bëri buñ ko xamee faj aajo gee tax waaye tamit ñu bëri buñ ko xamee fas gi nga xamante ni jamono ji ñu bëri am nañ ci satisfaction moom moo tax nag def na combat mooy lan moom mooy kaaraange ñëpp dañ ko war a am waaye nag nee na ngóora ñëpp dañ ko war a am nee na itam alal ñëpp dañ ko war a am ndax mooy ubbeeku gi nga xamante ni moom mooy tax sa ponk yëpp mat mi ngi noonu mbokki internet Allô Sénégal ñi ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ëllëg seen beneen émission jërë ngeen jëf